kon raad madaniya la moom ay aayaam guddul euh, ñeen fukk yu teg tuuti la rek ñeen fukk ak juróom wala juróom benn wala lu ko manqué ay baatam juróom ñetti téeméer ak juróom fukk la juróom ay xarafam ñetti junniy xaraf ak ñeenti téeméer ak juróom benn ñaari mansuux nag mi ngi ci tawxiid daal lay jàngale saari màkk yi ni ñuy jàngalee tawxiid saar yi moom dana ko laal bu baax a baax ci tawxiid bismillahi rahmaani rahim alif laam miim tilka aaya ayatul kitaabi ñooy aayay téere bi nga xam ne moo wàccee ci xadra yàlla bu sell baax da de walladi mooy alquran ji nga xam ne mooy téere bi nga xam ne undila wàcceef na ko ilayka ci yow rasulullahi min rabbika mu bàyyi ko sabon alxaq muy dëgg sikki sàkk amu ci tappale amu ci walakin waaye aksara naa si li ëpp ci nit ñi laa yuminu du ñu gëm alquran taxawaay ba ca war defuñ ko dëggal ga ca war defuñ ko sonn ga ca war defuñ ko kan mooy yàlla mu leeral allahu yàlla sunu alladi mooy buur ba nga xam ne rafaa yëkkati na asamawaati asamaan yi moo koy yëkkati bi xayri amadin tur muy am benn poto wala keno taraw naa boobu da ngeen ko gis comme ni nga gisee keney zawiya bi nii mu mel ni hmm? waaye itam noonu la yëkkatee ruux yi am lu mu ca def su sawa topp jublu moom yàlla wala nga ne yamoona yamoogu yamoog moom yamoona yamoogu yelloo ak moom al arsi ci kaw gàngunaayam ba wa sakkara tàggat na moom yàlla asam sa jant bii moo leen ka tàggatal muy dem ak dikk wal xamara ak weer wi kullun ku mu ci ñoom ñaar ya jiri dafaa daw ci yoon wa mu war a jaaree yàlla def yi li ajlin ba cib dikk musamma ba di bañ tudd am na délai boo xam ne buñ ci àggee ñoom ñaar dootuñ doxati hmm. yàlla bokk na ci yu dabbiru mooy setantal al amra mbir yi yëpp mbir jaam ñëpp yu fassilu mooy leeral al ayaati aay yi wane ne yàlla kenn la laallakum ndax la yéen nit ñi tuuqinuun ngeen di way wóolu bi liqaa'i rabbikum ci da seen boroom lii yàlla doo nga ko mën de woowu moom yàlla sunu borom alladi mooy buur ba nga xam ne madda tàllal na al arda suuf sii wa jaala bind na fiiha ci suuf sii rawaasiya ay montagne maa ci bind waana xaaran ak i dex lii bàyyeb kenn mënu ko sëriñ yëpp kenn mënu ko man mii yàlla ne maa def lii waaye bu fekkee àllu isaara la wa jaala fiiha rawaasiya mooy nit yàlla yi xutbu yi rawaasiya dégg wa min kulli samaraati ak bépp meññent jaala def na fiyaa ca meññent ma zawjayni peer is ni yey ñaar lu ne ñoo ko def ñaar papaaya bu góor ak am na di mango gu góor ak gu jigéen nag am na di yëpp noonu la yàlla bokk na ci li mënti di ko def yoxu si dana muure allay la guddi gi moo koy muure an nahaara mu inna fi zalika nekk na ci lii ma fi tudd laayatin kiimaan buy wane ne yàlla kenn la waaye nag li xaw mi ñeel nit ñi nga xam ne mm. yatafakkaruuna daañu xalaat ci ni yàlla di bindee ak ni muy liggéeyee dégg bu baax a baax mm. kon nag mm. mbir mu moom sa xel mi joxuñ la ko rek nga ne ñu mu mu taaje fa mu taaje wa fil ardi nekk na ci suuf si xitaawun ay dogit mooy ay xeeti suuf bii xonq mhm. bii ñuul mhm. bii weex mhm. bii kawe bii suufe sunu borom nee na ma la mu te jaawiraatin bii saf xorom bii saful xorom yëpp mana danga da nga ci dem benn tool tool bi benn suuf bi la nga gis fii saf xorom ci tool bi fee du saf xorom yàlla nee na mën a wa jannaatun aki tool maa leen ko defal min anaabin yu bàyyi koo ci resin wa zarun akum mbay maa leen ko defal bu fekkee nag dang nga kaa rafaa xamal ne da koy ati fële ca jënnaatun ja soo ko jaree nag day da nga ci dóor ci ji rek mu yeex sunu borom nee na maa leen ko defal wa aki ak i tool yi tàndarma yoo xam ne sin sinwaanun am ci tool yoo xam ne ay seex lañu wa sin waan ak yoo xam ne du ñu seex dañu wéet par benn benn lay doon tool yi ngeen fi gis yëpp yusqa dees na ko nandale dees na ko roosee bi maa in ci ndox waahidin bay benn taw bi dong mooy jaar ci yii yëpp wala lay bi dong mooy jaar ci yëpp lañ la fi waxoon na góor gi bu saax loolu doon wax nee na yàlla bu mënutoon su tawalee papaaye ba mu ñor day wax nag ko amoon papaaye na nga baase maa nga tawal kaani ndax gis nga kaani ni waaye waaye nee na ndox mim taw papaaye mu ñor saf suukar neex moom la taw ci kaani mu ñor weex kookoo yàlla mën naa feer de xam naa ne moom wanu faddilu daañu gënal baadaha lenn ca meññant ya ala baadin ci lenn la filug lu ci lekk xam nga ne kay wóor na la baara neew moo dàq garga mboose mu nga lekk garga mboose ah xam nga garga mboose mi ngi foofu ci seen wetu daara ji nga naan dama koy dégg si noonu fii nga naan dama koy dégg yow daal àlla bonni <laughs> gërëm nga mboota kay weexul waaye xam naa ne ko deq dégg nga kon nag dàqante nañu xeetu xeetu ñam yi inna fi zalika nekk na ci lii laayatin kiimaan bu wan ne yàlla mënu lu ne li xaw min ñeen nit ñi nga xam ne daa ñu am xel ba di ko jëfandikoo yow yeneen bi nag yaa ngi yéemu ci gaa yi weddi gii ñu weddi alquran jarul yéemu li nga war a yéemu kay mooy ñoom weddi gi ñu weddi dekki looloo gën a yéemu nag waaye li ngay yéemu matu ko wa in taajam ndegam yaa ngi yéemu ci weddi gi ñu weddi alquran faaja buñ kéemaan piir xawluhum mooy seen kaddu googu ñu wax te weddi gi ñu weddi dekki la weddi dekk mu jër yéemu ñu nga a iza kunna ndax suñu nekkee turaban di suuf dégg nga de a inna ndax nun la fii daañu nekkaat ci bind jadidin bu bees a bees waay ndax ñun buñ demee ba nekk suuf ñu moño xoo ndax daañu bindaan ñu waat waay lii laaj nañ ko ulaayika yooyu la gaay di wax kàddu yii allazina mooy ña nga xam ne kafaru weddi nañu bi rabbihim ulaayika yooyu la gaay al axlaalu gëx yi fi anaaqim nekk na ci seen loos ya ulaayika yooyu la gaay saabu naari ñooy waa sawara hum ñoom xaaliduun way beel lañu fihaa ca sawara sa saa bu ne ñu ne yonent bi boo yàlla tawali doj ñi lañ doon wax di nga kokkali lu ne ñu dugg ca waaye saajiluunaka ñi ngi lay jéem a gaaweloo bi sa yi ci ngi indi mbugal mi xabla la xasan la njëkk yërmande di wàcc ci ñoom te ñoo soxla yërmande mbugal moom ku ko xamul rek a kay laaj de fitna wa qad xalat woon na almasulaat ay xeeti mbugal min qablihim ca ñe leen fi jiitu woon te weddi tee ñoo xool te ñoo ñu ti jéem a jàjju wa inna rabbaka naka sa boroom la zu magfiratin boromu njéggal la linnaasi ci nit ñi ala zulmihim ànd li ñuy tooñ tooñ tooñ tooñ suñ jéggaloo borom bi ala boobu dafa yor maanaam maa ay maa zulmihim dégg nga ko baax wa inna rabbaka naka sa boroom nag nga bàyyi xel na itam ne la shadidul iqaab ku tar ay duma wa yaqul dana wax allazina gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu lawla unzila teewoon wàcceef alayhi ci yenanti bii ayatun kéemaan min rabbihi bu bàyyi ko ci boromam ñu ne ñun daal miracle lañu bëgg waaye yenant yenant laa rek lii di wax waxi noonu rek ñun daal loolu doynu ngàtt na ba ëpp yàlla nag ne ko yow sa yoon nekkul ci loola innama anta xamal ne lu mu dul du ma lu dul yow yenant bi ab xuppakat kese nga wali kulli xawmin ñeel la bépp nit bépp xeet haadin benn aji gindee bu leen di gindi xeet wu ne am nañu bu yonent xeet wu ne ak jamono bu ne yàlla tabbu na fa benn borom jamono ndax yonent bi moo ne téeméeri at yàlla dana indi kuy beesalaat diine ji waaw jamono bu ne yàlla yabal ay aktaab ñu wuutu ko fi wali kulli qawmin haat yoo xam ne leen di orienté leen teg ci siraatal mustaqim allahu yàlla sunu boroom yàlla mu xam na bu baax maa tax mi lépp loo xam dana ko ëmb al unsa jigéen lépp lu jigéen di ëmb góor la jigéen la mat na manqué na rafet na ñaaw na gàtt na njool na aljana ak sawara yàlla dina xam naa ko yàlla dina xam naa ko aywa wa maa taxiidu ak lépp loo xam dana manqué aywa kon damaa juum ah wa maa taxiidu wa maa ta ak lépp loo xam ne dana manqué al-arxaamu ci ruxumu jigéen ñi maanaa matul diiru la ñuy ëmb diiru la ñuy ëmb la ca gën tuuti mooy juróom benn weer waaye la ca gën a bëri dem na ba ñeenti at juróomi at waaw léeg nga gis kuñ ëmb juróomi at kuñ ëmb ñeenti at ñaari at yëpp day am dégg nga bu baax a baax mm-hmm. kon sunu borom nee na mën a mm-hmm. wa ma tasdaadu mm-hmm. ak lépp loo xam ne day ëpp dégg nga maam ci diiru ëmb bi nee na mën xam nga léeg mën nga dem ci éco yi ñu xool ne weer wi mooy sa weer fan sangam da nga am doom léeg-léeg mën nga faa bañ di am doom te doom ji mucc dara du ko jot léeg-léeg nga romb ko bëgg yaakaar ne leen téye doom ji yàlla pareegul ñoom seen xam-xam daa am limite wa kullu shay'in dégg loolu lii rek mu tëjee ay yi di ko lépp lëf ay ndaw nekk na fa yàlla bi miqdaarin ci kem boo xam ne du ko romb mbir mu ne heure lay xaar bu heure ba jotee ba ko yàlla date rek foofu la foofu la yem yàlla alimul xaybi mooy aji yu fàddu wa shahada ak yu teew alkabir mooy aji màgg moom yàlla almutaal mooy aji nota ji sawaun aji yamoola alay minkum ci yéen ci yàlla man asara képp kuy nëbbu alxawla kàddoom ñemewul mu jëm kaw yàlla xam na wa man jahara bihi ak képp kuy béral di wax ca kaw yàlla xam na wa man ak koo xam ne mustaxfin aji nëbbu la la muy def ak la muy wax di ko def nag bi layli ci guddi bàyyi ba mu muy def la muy def mbaa mu di ko wax yàlla xam na wa saaribun ak koo xam ne aji feeñal la ko dégg de feeñal la la muy def wala nga ne aji dox la bi nahaari ci bëccëg la mu cay def yàlla xam na ko dégg nga yàlla lahu ñeel na ko moom yàlla sunu borom wala lahu ñeel na doomu aadama mu aqibaatun ay remplacement malaayika yoo xam ne ñooy wuutu wante ci nit nit ñi comme ni nga gisee nit ñi ni ñu renouvelé kii dem ba mu yàgg kii ñëw kii dem ba mu yàgg kii ñëw noonu rek la yàlla boole defee nit ñi xaw malaayka yi ñu nekk ci service doom aadama yi noonu lañ fa nekkee ak ñoom kenn ku ne yàlla boole naag ku bokkut ak kiraaman kaatibiin ñii dañ fi nekk ba tusbaar ñu dem ñi nekk fi ba nangam nangam ñu dem heure yi daal dañoo bokkul ñii dañ fi nekk guddi gi ñii nekk fi bëccëg bi tabaarakallah ñii di bind yiw yi ñii di bind safaan yi kenn ku ci ne ñii nekk ci côté nopp yi ñii nekk ci côté tuñ yi ñi nekk ci côté bët yi kenn ku ne ak mission bi ngay dox ci doomu aadama waaye dañ fay wuutu wante nag ñii bu seen heure jotee rek ñeneen ñëw continuer waat ci service doomu adama min wa min xalfihi wa min bayni yadayhi min nga xam ne nekk nañ ci kanamam malaayka yooyu wa min xalfihi ak ginnaawam yaxfazuunahu daañu wattu doomu aadama min amrillah ba tax yenn yàq yeeg jinne yi fooy yëpp yàlla lay musalee ci yooyu waa ñii nekk kenn ku nekk ak fa taxaw daal mm-hmm. ak la la tax a jug ci doomu aadama jafe-jafe yi ngeen am nag xoolaat leen ni ngeen di dundee kiris mm-hmm. beeg yooyu mm-hmm. yéen la inna allaha naka sama boroom laa yughayyiru du soppi maa bi qawmin lépp lu nekkoon ci aw nit ci aw xéewal du ko jël mukk mukk mukk da leen koy bàyyee feeg nit ñaa ngi mel nañu war a mel xatta yughayyiru mba bu nit ñi dañoo soppi maa bi anfusihim la nekkoon fa ñoom ci topp yàlla ñu soppi ko ak mooy yàlla ah boobaa yàlla nag soppi moom yeneen daana wax ne saa boo gisee sa xol wow wala sa wërsëg jafe wala sa yaram bëri feebar xamal ne wax nga lu tax yàlla teg na nattu boobu wala jëf nga lu tax yàlla teg la nattu boobu wa ida araada bu bëggee moom yàlla suñu boroom bi xawmin ci aw nit su an lu ñaaw fala maradda amul jenn aji défendre lahu ñeel doomu aadama ca loola wa maa lahum amuñu ñoom nit ñi min duunihi mm-hmm. ku dul yàlla mm-hmm. min waalin mm-hmm. ci kenn ku leen di méngoo ba li leen yàlla bëgg a teg du ko teg hoo moom yàlla allati mooy buur ba nga xam ne yuriikum daa leen wan albarka melax gii moo leen kay wan xawfan mbir moom ngeen di way ragal nekk ci àll bi muy melxati ngeen tiit yaakaar dund gi wàcc faat leen ci àll bi wa tamaan waaye ànd di yaakaar yéen ñi nekk ci kër yi yéen moom bu ñu melax yi yéen na ngi yaakaar taw bi nekk fa ndax ponateer yi luñ koy waxee sax li dàq dënnu yi noonu ponateer lañ koy wax xaw ma ah, noonu tudd lii puus dënn yi noonu ponateer lañ koy wax wala luñ koy am na lu gaa yi def ci taax yi da loo xam ne tur mooy sànni dënn bi pour mu dem géej ponateer lañ koy wax wala paratonnerre waaw kay ah waaw kay sama sëriñ ñëw na paratonnerre waaw kay <laughs> yéen ñi nekk ci kër yi paratonnerre yooy la ñuy jël rek mu sànni affaire bi ngeen di yaakaar yàlla ne man mi maa def lool wa yun si u dafaa sos dafaa bind moom yàlla a saxaaba niir yi yàlla moo leen bind a siqaal ñuy way dis gann ak ndox yu sabbixu wa yu sabbixu dina sabbaal ar raadu malaayka moomu nga xam ne moom lañu wakkil niir yi dénk ko ko ñëwee déedéet raadu bi ci boppam mooy dënn gi dana gi yëngatu googu mu yëngatu sa sabal yàlla benn malaayika moo ko jiital ak sagar yoo xam ne sagar yi sawar la ko jiitalee di ko màngee mu yëngatu yëngatu boobu ñenn ñi de benn malaayika bu gën a ci malaayika yi moo yuuxu noonu di sabal yàlla ah waaw bu tuuti bi mu ne loolu mën a jaxase dëgg bi waaw man de xam bu ponkal bu ñëwee fu ñu moo tax nit ñi doy nañu waar de war nañoo bàyyi xel yooyu de ndeysaan saa boo déggee dënnu nag soo waxee aaya moom mën nga caa mucc ak lu dund garaaw garaaw yeneen ti bee ko jàngale dana sabbaal ko arraadu mooy malaayka ma di xamdihi ci sant boroomam wal malaayka ak malaayka itam daañu ko sabbaal min xiifatihi ngir ragal gu ñu ragal sunu borom dégg nga de euh, aa yi ñu waaj wax dañu wax ne benn waay yeneen bi dafa mës a yebal sahaaba yi ci benn dëkk pour ñu woo leen ci yàlla bañ demee nag waaje kilifa dëkk ba ne damaa bëgg ngeen xamal ma kan mooy yàlla yi sayyidina muhammad jim ñuy woo ndax wurus laam xaalis laam weñ laam bant laam përëm laam lan saxaaba yi rëylu wax ji lool nda wax ji dérangé na leen yeneen tamit daf leen ngeen woo ko ci yàlla ba muy ñetti yoon nag waa ji taxaw di laaj laaj yu ko yooyu yàlla waa ci diddinam ne ko yàlla Muhammad jàngoog moom nga doon laajte moo def loolu jeex na ma ngoog kon nag wa yursilu dana yabal moom yàlla asawaayiq ay menu mooy ay dënn yoo xam ne la ci nekk mooy sabara fa yusibu dafaa jot bihaa ci dënn ba man yasaaw ko ko neex mu alag la jeex na nii rek la te waxum ñoom yéeféer yi yu jaadilu na ña ngay werante ak yenanti bi fillaahi ci amuk yàlla ndax përëm laag lu ne ñu wax ko ca waxum moom yàlla sunu borom shadidul mi'aal ku tar kattan la lahu ñeel na ko mu yàlla sunu boroom daawatul xaqi baatub dëgg te mooy laa ilaha illa allah ak wéetal ko walladina gaay nga xam ne yadduuna ñi ngay jaam min dunihi lu dul yàlla yooyu ñuy jaamu wiir ko seeni soxla ñi ngi ci musiba kon soxla moom boo ko amee aajo wékk ko yàlla koo ko wékk wala loo ko wékk lu dul yàlla ah mën na jafe de laa yastajibuuna du ñu wuyu lahum ñeel leen bi shay in ci benn mbir moo xam ne yaa ngi ko wékk la nga ko wékk wékk ko yàlla mu gën gaaw nee na ñooñu la ñuy def kaay bi misaal leen nañ ko ñii jaamu lu dul yàlla ak di woo lu dul yàlla dafa mel ni daal koo xam ne day jéem a téye ndox dem ba ca pindu teen ba di jéem a yoor loxoom pour tànk ci loxoom ci tenkam yi ca ndox ma pour naan dana fa yàgg du naan de ndax jaarul yoon wax mbir mu ne dafa am yoon mm-hmm. illaa kabaasiti mm-hmm. luñ kom aji tallal ji nga xam ne dafa tallal mm-hmm. ka fayhi ñaari tenqam ilal maa i ko ca ndox ma taxaw ci kimi ju teen bi li yablu ko pour na ndox ma yëkkati ku jot faawu gémmiñam dama ne wa maa huwa déet kooku ak ndox moomu bi baalik yi muy aji mën a jot gémmiñam bu fa taxawoon lu mu yàgg-yàgg du tax mu jot ca ndox ma kon kuy jaamu lu dul yàlla nii la jërul sonn wa maa duwaawul kaafirin déet jaamu yéeféer yi ak yeñi jaamu nekkuñu illa fi dalalin lu ci ak cànkute walillaahi yàlla moom wal ba yes gi dana sujjóot kon lillaahi ñel yàlla man fi samawaati mboolem li ci asamaan ngi màggal yàlla wala arde ak suuf tawaan ci coobare wakkaral ak ci force comme naa fekk ya xam nga julli gi ñuy julli julli force la ndax gëmuñu ko waaye daañu ci def far force wa zilaaluhum wa dana sujjootal zilaaluhum seen takkandeer yi bil xudwi ci suba wal asaali même yéeféer bi bu nanguwut a jaamu yàlla takkandeeram ci boppam day sujjootal yàlla suba ak ngoon ci suba ak ngoon xul na leen dama leen di laaj yéen ñi weddi alquran man rabbu samawaati kan mooy borom asamaan yi wala ak suuf suñ la tontuwul qulillah neel yàllaa ko moom moo ko bind xul na leen afa afa taqassum waa ndax da ngeen di jàpp awliya ay ay ah, waa duma xadam awliya ay xërëm yu ngeen di méngoo min dunihi bàyyi fi yàlla jaaduwul te yooyu wala yamlikuuna moomuñu nafaan benn njariñ munuñ kaa ñoddil li am fu si wala daran du caagi benn lor buy jëm si ci ñoom munuñ kaa puusal seen bopp kon nag yow waroo ànd ak ñooñu waroo déglu ci dara hmm? dégg nga kul waxal ne hal yastawi ndax dana tolloo al ama silmaxa wal basir ak kuy gis waa jullit ak ku dul ñaar ñi daañu daañu yemoo déedéet am hal tastawi ndax dana tolloo mm. azulumaatu lëndëm te mooy ak weddi mm. wa nuuru ak leer mm. gëm yàlla ak lu gëm yàlla daañu tolloo mm-hmm. déedéet mm-hmm. am jaalu mm-hmm. wala dañu defal lillaahi ñeel yàlla sunu borom suraka ay bokkale bokkaale yoo xam ne xalaxu bind nañ ñoom bokkaale ya ka xalqihi mel ni ni yàlla bindee da nga wax baax mu mel ni seen xërëm yi dañuy bind comme ni yàlla di bindee wala la ñuy jaamu te du yàlla dañuy bind comme ni yàlla di bindee fa tasaabaha lënt nuroo alxalqu bind nu yàlla ak bind la bokkaale bindi alihim ci ñoom ba ba ba yàlla jaamu déedéet te déwul noonu ndax yàlla moom bind na tey binduñu dara ne leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp waxu moom yàlla alwaahidu mooy aji wéet ji alqahaar mooy notaakoon bi andala wàccee na ba tey moom yàlla mina samaay ci asamaan si ma ngay jàngale yàlla de ci façon bu leer naññe wane na bokkaale moom tabaarakallaahu wàcce na moom yàlla ba tey mina samaay ci asamaan si maa an ndox moo ko fi wàccee fa saalat ndox mi yol wala ngaan fees dégg nga ko awdiyatun ay xur bi qadriha comme quantité xurwa yaatuwaayu xurwa yàlla feesal ko dell ak ndox faxtamala yëkkatiku asaylu yol ndewa mooy ndox ma yëkkati zabadan fuurit fuurit mi nag la nga cay indi mooy ni muy walee noonu boo yàggee dem ci àll bi ci xeeti xeeti xur yi wala xeeti eh, numtuti yi déeg yi mm. da gis li ma wax mm. mu fuur nii raabiyan muy aji yëkkati ko sabadan fuurit moo xam ne mm. raabiyan aji yëkkati ko la ca kaw mm. suñu def lii mm-hmm. wa mi bu fekkee mënu leen a xam loolu mm. gis nga nag ndox ma nekk ci suuf mooy dëgg fuurit ma bu ngelaw li mu naa saay mooy lu dul yàlla mm-hmm. loolu rek la misaal mi bëgg a joxe mm-hmm. yii mu fi bëgg a joxe yëpp façon boobu la wa mi maa tunqidun am na ci lenn ci li ngeen di taal yi ci loola fi naari ci sawar sa mooy bu ngeen jëlee or bi xeeti gànjar yooyu nga jël ko yóbbu ko ci tëgg ba mu di ko defar saa bu ko dugalee ci toggeekaayam boobu da ngay gis weñ gi day dem baruy su demee baruy nag day fuur la fuur da koy sànni dali amu ci soxla loolu mooy ay caaxaan la fa des nga xam ne moom la war a defar or bi ñuy tak mooy dëgg loolu lañ fay jënd di waaye kenn du jënd si fuurin ba waa dégg nga lool ibtigaa ahliyatin yéen a koy def ngir sàkku ci ay takkaay mm-hmm. aw mataayin wala ngeen ci ay bagaas mm-hmm. zabadun am na fuurit misluhu mu mel ni ki mm-hmm. ma amoon ca ndox ma kadalika naka nii yii ma fi tudd yadri bu lay sadde allaahu yàlla alxaq dëgg uh-huh. wal baatil uh-huh. dëgg caaxaan nii dong la lii xam nañ ko dañ koy dund di nga gis fa amma zabadu ndaal caaxaan mooy fuurit ma moo xam fuurit ma nekkoon ca ndox ma la wala fuurit mi nekkoon ca tëgg ba fa yezabu dafaa dem jufaa nekk lu naax saay nekk lu fendi doo fa gis si dara waa maamaa yeen faw daal li nga xam ne mooy jëriñ annaa sa nit ñi di ndox ma ak or bi ngay takk fa yam kusu dafaa des fil ardi ci suuf si tabaarakallaahu nit ñi mën ko jëfandikoo kii takk-takk foo jaar ñu ne sa takkaayi nangam mu jël agresseur yi lu ne ndax takkaay bu rafet hmm? kadalika nekk nii daal yii ma fi tudd yadri bu lay leeralee allahu yàlla al amsaala yeete yi ak eh, misaal yi pour ngeen gindiku xam ne yàlla dañ koy jaamu li lazina ñeel na gaa yi nga xam ne istajaabu wuyu nañu li rabbihim ñeel seen boroom ñeel na leen wuyu guñ wuyu yàlla alxusna aljana waaye wa lazina gaa yi nga xam ne lam yastajibu wuyuñu lahu ñeel yàlla ci li mu leen di woo tawxiid beeg yooyu law anna lahum bu amoon maa fil ardi mboolem li ci suuf yëpp mm. wa mislahu ak lu toll ni ci suuf mm. maa wa ànd ak la am mm. lafta daw jotoo koon nañu bihi ci duma ya mm-hmm. mooy suñu amoon aduna ak li ci biiram ak lu tollaat ni loolu ñu joxe ko pour ñu bañ leen duma daañu ko def ulaayka yooyu la gaay la ñeel na leen suul xisaab mbugal mu ñaaw a ñaaw te wa maa am seen kër jahannam wa bi sa bon na almihaad boobu le aay ji nee ñu ngi ci diggante abu jahlin ak Hamza ibn Abdul Muttalib sunu borom nee na afa man ya'lamu ndax ki nga xam ne xam na bu baax ne annama unzila du ma lu dul lii nga xam ne ceef na ko ilayka ci yow yenent bi ne min rabbika mi nga bàyyi ko sa al alxaq mooy dëgg ba pare gëm ko kama ndax dana yem ak ka nga xam ne woo moom ama dana yem ak ki nga xam ne dafa weddi ba xàmmee wu ko ba gëmu ko ñaar ñi daañ yam déedéet duñ yam kon ngook ngoog yéeféera ngook dégg bu baax ma ngoog euh, loo teg innama yatazakkaru duma lu dul dana waaru ulul albaab borom xel yi sell yi nangul yàlla ñooñu ñooy ñan mu ne alladina gaa mooy gaa yi nga xam ne yuufuuna daañu matal bi ahdillahi ci kulli rek yàlla gamu mu jàppante woon ak ñoom ci alamu zar uh-huh. ñoom duñu ko fàtte mukk uh-huh. te mooy démb uh-huh. wala yanquduuna duñu firi al ahda al misaaxa kóllëre yi seen digganteeg kenn borom seen digganteeg nit yàlla bi leen yàlla booleeg duñu ko mës a war walladina mooy gaay nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa la nga xam ne amara santaane ne allahu yàlla sunu borom an yuusala jokkeef ko moo xam ci ngëm yàlla seen digganteeg seen borom seen digganteeg nit ñi seen digganteeg mbokk gi lu ci jaadu lu ne dañ koy def wa yaxsabuna daañu ragal rabbahum seen borom xam ne buñ daggee mbokkukat lu ne mën na leen caa fekk wa yaqaafuuna daañu ragal ba tey su al xisaab mbugal mu ñaawa ñaaw ñu ngi koy ragal wala dina mooy gaa yi nga xam ne sabaru muñ nañu nattu yi muñ topp yàlla gi muñ mooy yàlla gi ñetti xeeti muñ yaango ba ca gën a kawe nag ëpp ci daraja mooy asabru anil maasiya waaw ba ca topp asabru ala taat ba ca mooy bu mujj bi muñ googu ñuy muñ nag ibtigaa wajhi rabbim ñi ngi koy def ngir sàkku seen jëmmi borom defuñ ko ngir nit ñi tagg leen su amee mbaa nit ñi di leen ci yéem déedéet dañ koy def rek te yàlla tax waa kaamu taxawal nañu asalaatu julli yu juróom waan faqu dépassé nañu mimmaa razaqnaahum ci lañ leen wërsëgal sirran ci lu kenn yëgul wa alaani ak ci lu ñu yëpp yëg te wa dañuy dañuy jañee bil sayyi a lu ñaaw dañuy ko jañee bil xasna ci lu rafet mooy soo leen defee lu ñaaw wala nga wax leen ko ñoom lu rafet lañ lay tontoo ulaayika yoo lay gaay lahum ñeen leneen uqba daar mu jëkk gu rafet ga te moo di aljanna kër gu rafet ga mooy gan mu ne jannaatu adnin mooy aljana ju sax ji nga xam ne yadxuluunahaa daañu ci dugg ñoom mm. wa man salaxa ak képp koo xam ne gëm na mm. yiwe na rafetal na mm. min abaihim seen ay baay ña ca mel noona daanu dugg waas waajihim seeni ak soxna ña mel noona daanu dugg wa zurriyatihim wala wa zurriyatihim ak seen ay njaboot ña ca jaar yoon daanu dugg suñu fay dugg nag malaayka yi ñoo leen di accueillir di leen dalal wal malaayikatu malaayika yi daal yadxuluuna daañu dugg alayhim ca jullit ña min kulli baabin tukkee ci bépp bunt boo xam ne ci buntu aljana yi la dina accueillir suñ leen di dalal nag kàddu yi lañ leen di wax salaamun jàmm ju yaatu aleykum bi ma sabartum ca saabu la nga xam ne muñoon ngeen ko ci àdduna fa niamaamul moroom uqba daar mu jëkk kër googu ñu sant te moo di aljanna pare na ci ñi nga xam ne dañu nangul yàlla di sàmmonte kóllëre yi pare na ci ñoom dafa jàll ci ñi nga xam ne ñooy seeni safaan